xam ngeen ne yonent yàlla nuuhu alayhi salaatu wasalaam bi mu naan rabbi laa tasar alal ardi minal kaafiriina dayyaaran suñu borom bu bàyyi ci kaw déndu suuf bi kenn ba ba fekk na junni ak ak téeméer ak lu topp woote na koy jëme ci yoonu yàlla ñu di ko lor kenn mi mu koo déglu li muy wax kenn du ko déglu léeg-léeg buy waare ñu doxe ko gannaaw fab xeer wi gën a diis dóor ko ci boppam mu tàlli sedd guy ñu wat ko ba ca àll ba ñu sànge ko mbubbam bu guddee ba seddu guddi bi jàpp ko ngelaw li upp ko mu jógaat xam ngeen ne noox dund na junni at benn bañam musula wadd nit la ku ku dëgëroon te xara te bari ay pexe loolu moo tax moom musula nekk menuisier te mu yett gaal googu gaal gi bant ba nga xam ne ca la ko yet moo ko jëmbat di ko suuxat ñeent fukki at bi mu suuxatee bant bi bantu stage ba mu mat sëkk moom Yunus ci boppam moom Noox ci boppam moo mel ne law bi amee sawtaam ak sémiñam gor garab ga yett ko ba mu nekk gaal mu teg ko ca booru dex ga doomu aadama yi mu daan woo jëme ci yàlla ñuy bañ ñëpp ñuy def ku bëgg dem cabine rek dem ca gaal ga ba gaal gi ñuul kukk kenn mënu koo xool suñu borom daal di def waa réew mi ràmm ràmm ràmm ba kenn koo gis rek fu mu toll mu ngi wokkatu xamatu fu mu nekk benn waaye bis di sangu ci dex gi yéeg ci gaal gi barastiku daanu ci gaal gi cabinet yooyu taq ci yaramam mu gis fu kabine yi laar rek ràmm bu wér mu daal di sangu ci cabinet yi mu wér bu mu génnee wax ko nit ñu njëkkante gaal ga dindi cabinet yëpp ba mu set ñu raxas gaal ga sangoo di ko raxas di sangoo ba nga xam ne gaal ga gën a set ci àdduna suñ borom nattoo leen natt boobu teewul ñu wéy ci ak dëng ak tooñ ba yont yàlla noo xool ñëpp xam ne amatul kenn kuy juddu ci ñii koo xam ne dana gëm yàlla mun nag innaka intadarhum yudullu ibadak wala yalidu illa fajaran kafaran mbiri yont yàlla noo ku ne dégg na ko moo gën a rëyee ci sax lu nekk la daj daf daan waare yu dem yéeg ci kawum saa ab dëgg woo xam ne ay kilo yu bari la peese lu ma ko ba mu dal ci bopp bi wala ci ndigg li mu dal di sànni sedd guy ñu wat sànni ko ci sën ba bu buddee ba ngelaw lu sedd li ëpp ko mu xirmaliku bu jógee delloo si di woote woote ci kaw suuf juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom fukk doomu aadama yi bañ bu xool biir jigéen xool góor gis ne amul kenn kuy war a juddu koo xam ne kii dana gëm woote bi yàlla mu toog ne rabbi laa a alal ardi minal kaafiriina dayyaaran suñu borom bul bàyyi ci kaw suuf benn mbindeef innaka in tadarhum yudillu ibaadaka wa laa yalidu illa faajaran kafaar soo leen bàyyi dañuy réeral sa jaam yi xasoo na gëm mooy ñu néew borom far loolu mu juddoon lépp ba mu des ñu ànd nag noonu rek ci gaal gi suñu borom ñi gën a xejj ci moom mu gën leen a fonk léeg-léeg mu yemale leen léeg mu jàjj leen léeg-léeg mu gëdd leen ngir ci alquran noox alayhi salaatu wasalaam yonent yàlla noonu mu bokk ci ulul azmi ci juróom ñu gën a foor ci yonent yi doomam ji mu jur ba muy ñaan suñu borom ne ko danga ne woon danga mu musal maak sama ñoñ yëpp sama doom mi ci sama ñoñ la bokk borom gëdd ko yaa nu wax innahu laysa min ahlikum innahu amrun saalihun fa fa lanim alayka laka diinun in ya'izuka an takuna min al-jaahiliina suñu borom jàjj na ko ba gëdd ko maa ngi lay waar maa ngi lay tiital ndax nga bañ a bokk ci ñu réer ñu réer a dogal suñu borom yàlla bu xasee ba dogal benn jaam amul sañ-sañu amul njubub wane ca sax xol bu naqari doom doom la waaye yàlla moo jiit lépp te bëgg-bëggam moo jiit bëgg-bëgg yépp ndax xam noo umpaliwul loolu xam ne ne suñu borom wa jalla moom rek nekk ci xolam dafa jaare woon rek yoonu sharia te sharia yonente yi dañ koy tëral ngir jàngale jaam jàngal jaam ñi léeg-léeg li ñuy def daañu ko tëral ci sharia waaye fekk xaqiqa ba ca nameelu yàlla du noona foofa la leen suñu borom di jàggee ndax buñ nee ahlu ka ci zahir ci sharia doomu noo ci ahlam la bokk waaye bu dee ci xaqiqa fa suñu borom bokku ca ndax daf ko boole ca ñay texee di moo tax bokku ca noox jëfe sharia suñu borom jàjj ko ndax ñàkk bi yéen ci yàlla noox alayhi salaatu wasalaam moom itam bu ñu ko waxee ngeen xam a ko daan dóor ba ko sànni defe ne ngelaw lu sedd li upp ko mu jógaat dañ ko daan tiim xeer sànni ko ko ba deret ji ko buñ dikkee nemmee ko ba ne jeex na suñu xam ngeen junni at téeméer ñu ne juróom fukk te li mu dund lépp musul noppaloo man ni mu yette gaay boobu mu nekkoon itam nit ku xarala ku am ku mën ay métier reetaan yi ñu ko daan reetaan nga xam ne mën na tax ñu bari découragé noot loolu daf ko gën a bi nga xam ne xool na ba xam ne amul kenn kuy juddu ci biir nit ñi kuy gëm boobu dafa wax suñu borom rabbi la tadar ala ardi min alkafirina dayyaran innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara te teewul bi ko suñu borom santee mu fab car boobule jëmbat ko mu ne ko ñeen fukki at da nga koo suuxat bu tax yi fer bi garab gi màggee noonu moom lay eh, suñu borom digal ko mu yett ko gaal mooy gaal gi mu duggoon ba nga xam ne ñii war a bañ a lab ci la ñu dugg jamono yooyu yëpp wala xagas naa ñu wax ilaa xaw ma fala bi si mu fasala si illaa xam si na aman nee ñu dund na lu gis tuufaan mi junni ak li manqué juróom fukk dellu dundaat bi ñii ne ñetti téeméer ak ñii ne ñaar téeméer ak juróom fukk ñii ne téeméer ak ñii ne téeméer ak juróom bari noox bokk ci ulul azmi kon Muhammad alayhi salaam yëpp boole roo ga ca gën a diis ëpp ca doole gën cee rëy moo leen jiite bu ñëwee ci àdduna day dajeeg ñoom jamono wala ñu topp ci moom ñooñu ñoo war a xeeñtu aw doxinam ak meloom sëñ Tuubaa ni mu meloon moo di dogu goo xam ne dafa mel ne dogu ulul azmi roy leen dañ nga ci gisaw sakur moom sëñ Moussa ka di wax ci wala far wi fasbir kama sabara ulul azmi la ñu fa xaatibante bambay mbir mi fasbir kama sabara ulul azmi ak ni ñooñu mooy nit ñi gën a mën a muñ ci àddina gën a ñemee fitna gën a ñemee coono ngir wut ngërëmal yàlla xam ne dara mun leen a delloo gannaaw ñu boole kattanuk roo kattanuk yaram kattanuk xel kattanuk xol xol kattanuk leer yooyu yëpp ñu boole woon ko ñu ulul azmi ñoom yonent yi bépp yonent bu mu am sa mbiccum malaan am na wàllu bu si jàppandi ko sëñ Tuubaa wax na si masaal ku ñu naan kullu waliyin du tashabbusin abad bi ghayri man arsalahu xaqul yonent bu nekk am na wàllu bu jàppandu ci sa mbicc mooy sa ba dëgër dëgg ci sa tànk boo seetee ci yooyu tasawuf yi dañ naan la diw ne la kii Muusa yun wala Isa yun wala Muhammad yun wala nga xam ne kon lépp loo xam ne li ci kaawteef yonent digg na ko mu ñu tudde ko mucjisa wala mën na koo jikkee ñu tudde ko karaama xanaa ndax gannaaw alquran am na mel ne moom waaye su fekkee ne wala maa wu daje dañ ci ne su fekkee ne yonent bi bi mu indi mucjisa boobu dafa ne keneen du ko def danaa man beneen wàll yi du ko mën a jeex waaye bu fekkee nag daf ko def rek te waxul ne keneen du ko def wàll yi mën na ko def loolu mën a nekk benn laaj boobu nga sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ñu ngi ñaanal sëriñ Sam mu yàgg fi lool ñu ngi ñaan